mooy rek euh, taxawalaat euh, wàllu cet ba mu doon lu jëm ci biir Sénégal ndax itam xam ngeen ni matière première ak développement boo jël tey boo jëlee réew yi mag yëpp muy asi muy feneen yëpp dañoo dem ba jël mbalit boole ko ci luy luy luy soqali ndax mën nga cee am énergie mën nga cee am lu jëm ci wàllu engrais mën nga cee am lu jëm ci wàllu pavage yooyu yëpp donc tey jii nii perspective yi du dara lu dul jëlee mbalit mi ci biñ koy am muy de la production à la fin de vie du déchet muy chaîne de valeur yoo nga xamante ni ah ñi nekk fii itam ñoonu ko gën a xam ndax liggéey nañ ci ak ñoom mais lu leer ba leer mooy il faut ñuy yaraat ci population yi ñu xam déjà quel le tri éco-responsable lan moo leen ci war ci éco-citoyenneté euh, éco-responsabilité ak éco-geste aujourd'hui di dox di sànni mbalit wala boog di génn foo toll euh, ñu jal fa mbalit loolu dafa war a xewi ci réew mi te itam ñu xam ne mbalit nekkatul nekkatul euh, loo xam ne lu bon la mais dafa nekk loo xam ne ressource la